voilà ndanaan bi mu ngi nii champion baa ngi Abdou Diouf mais Abdou maa ngi seer. waaw doom day ñu yàlla nangu ziar. mais gëj a gisee. waaw loolu yàgg na doom day mais xam nga rek yite yeeg yow a waaw. man pour man sax mooy loolu comme gëj am combat bi nii da ngay mooy loolu état bi du fi nekk mais ni ma la gisee nii ah. <laughs> mais xam nga rek ñun liggéey rek moo ñu war ñun ay sportif lañ man ñu am combat ak ñàkk am komba suñu bàyyiwoon làmb sax li ñu war dañ koy def muy sport mais mais lan moo war a tax nga jël booy bi. waaw bon Gris Bordeaux nag boo Gris 2 boo gisee ma jël ko suma combat ak moom daaw lañ ko doon taxawal. parce que xëy na dama bëreek euh, magam daan ko te ku daan sa mag da ngay bëgg jëloo ko revanche xëy na daaw lañ ko bëggoon mu am lu mu doon sóor yàlla def mu dem jël yi euh, rëg-rëg man ma dem jël yi euh, forsa ñun ñëpp ku ne am defet après laa làmb boolewaat ñu. moo tax daal làmb ji jël ma ko ngir xaalis dama ko jël maanaam ngir Abdou Diouf fi mu nekkoon ci làmb ñëwaat fa moo tax ma jël ko moo tax combat bi daf ma jaral comme li ma wax dama bëgg su ma nit yëpp nañ ci jàpp xam xam ni ñun ay doomu géejawaay lañ te ñun géejawaay xam nga indil nañ leen victoire bu ne xam nga dem nañ Espagne indil leen fa ay xam nga ay médailles xam nga drapeau simple yi drapeau Nations Unies jël nañ ko indil leen. xam nga ndam lu nekk ñun mbër yi buñ bëggee làmb géejawaay man maa tax du dëgg kon damay xamal ni monsieur le maire waaw monsieur le maire Aliou Sall du dëgg ñun na jàpp ci combat bi béy di ba xam nga fuuta ah euh, andaw waaw ñoom ñëpp nañ jàpp ci combat bi xam ni combat bi ndamu géejawaay rek moo ñu yitteel ñun ñun du dara bàyyi woon nañ sax làmb ñun làmb ñun yàlla def na ñu ngi samt yàlla ñu ngi nekk ci yeneen business mais maanaam xam nga waaw waaw su ma waaw ñu drapeau Guédiawaye lañ bëgg delloo ci waat moo tax combat bi daf ma jaral lu bari. Gris dafa ne woon képp ku daan magam dana la daan. waaw mais looloo tax looloo tax mu jël ma Gris du magam ay magam laa daan parce que Gris Bordeaux gunge na ay mbër plus de six adversaires yoo xam ni. Fass waaw parce que Ousa bëri nañ fa ñaar yoon ma daan ko daan fa Birichili Gris Bordeaux bu muy nekk Gris Bordeaux laa ko jàpp daan ko ci ay secondes waaw xam nga waaw daan fa ak Ablaye Gueye comprendre nga kon yàgg na gunge ay waa Fass ñu ñu ma leen daan. kon yow ragaloo waa Fass quoi. non waa Fass ragaluma leen ñun man du ma ragal làmb làmb xam nga bisu bisu defet defet la du bisu ndam. mais mais mais Gris nekk xale macha allah am doole jóge ci defet xam nga ni buy ñëwaat day ñëw ak euh, lu doy waar. waaw da nga buy xale xam nga rek asuma ak man mi nga xam ne maa ko mag kon su may ñëw damay xool beneen facette waaw làmb la daal man maa ngi ñaan xam nga yàlla may ma ndam waaw di xama waaw xam ne du yomb suma doom ndey bi pa sant yàlla couture Pape si la moom da ko jaral lu ne da ko jaral lu ne moom suma xarit la vraiment waaw kii nii waaw mais mais gis nañ ñi ci xeex Gris 2 day indi bagaar bi day siffler mu song la seen daje dana metti de koy arrière waaw mais làmb la làmb moom bu laajee arrière ñu arrière bu laajee taxaw ñu taxaw ñun xam nga ñun ay mbër yu mag la ñun waaw ñun xam nga dem nañ fu ne ju àdduna bi entraîné nañ xam nga ñu bari kon ñun combat bi bu la lu mu laaj rek dinañ ko def bu laajee taxaw damay taxaw su laajee xeex damay xeex lu mu laaj dama koy def. fukk booy bi euh, tiitalu la. Hmm? no booy bi ah booy bi amul fukk booy bi dafa sedd sedd. moom dafa sedd quoi xam nga rek sa ay giri de hmm? moom xam nga rek dafa sedd quoi moom borom baax la borom baax la waaw ndongo daara la ko wute naa ak mag mag ji moom soomaan la du dërëm. waaw mag ji moom soomaal du dërëm tapet la mbëri moo ci gën a tapet. waaw rëy làmmiñ. waaw mais doon dóor gaa yi kan la dóor waaw na laaj Balla Gaye kan la dóor Gris Bordeaux ko ñaata at kañ la gëj a daan ah Gris Bordeaux kañ la phase bi mu nekk ñoo ko ñoo ko xama ñoo ko may coow nii rek mais Gris Bordeaux du mbër xama Gris Bordeaux kan la kan kan la gëj daan waaw waaw mais rakk ji moom arabe la Baye Fall la xama waaw borom baax la yow daal ñoom da nga leen jàppee ni dañoo sedd quoi yow. waaw waaw non dañoo sedd xam ga rek dañoo sedd moom yaayam baax dégg ma la yaayam suma xarit la ay magam xam nga waaw ñoom ñëpp sumay xarit lañ. nga nekk yaayam nekk sa xarit ba pare mu fas yéene laa euh, ñëw jàkkaarloo yooyu xeex ak yow. non Gris li mu am yaayam moo baax rek mais Gris du mbër yaayam moo baax man. xam Gris un du moo baax man xam naa yaayam bu baax waaw handicapé la waaw xam nga am na Abdou Diouf lay wax waaye Gris kooku day mbër kooku coow koo xam te ji plus de cinq ans daanoo mbër mbër du mel noonu man ñu xam nga mbërut waaye yow yow Gris doo day mbër ñun ci ay victoire la ñu tegale ñun dañuy toog mbëri ñu daw toog ay quatre ans nit ñi duñu daw duñu boycotté waaw mais ñun bu dul làmb sax ñoo ngi sant yàlla ñoo ngi tedd mais Gris Bordeaux du cent franc du dërëm non rakk ji rakk ji man ñun du ñu am lu may peur waaw man amul lu may ragal waaw waaw pakala mi mu niinal mënu ko daan comprendre nga man maa ko jàpp daan ko xam nga kon amul lu may peur ci loolu. mais Abdou maa ngi euh, waaw waaw waaw Abdoulaye Wade. maa lay dellu maa lay dellu ziar bu baax mais saa foo nekk. man maa ngi fi man maa ngi Espagne mais souvent maa ngi ñëw Sénégal lu bari ah. nan nga gisee làmb ji. waaw ji kontaan rek di accompagner suma doom ndey te maa ngi moom incha allah ñooy ànd entraîner affaire bi. incha allah làmb ji sunu làmb la booy bi mënuñoo jaaxal xam nga ñun giri giri un xam nga moom dégg nga li mu wax ci moom giri handicapé la te giri amul expérience bu mën a conseiller booy bi ba mën a ba ba mën a daan sa waay. billaay wallaay lu leer laa lay wax nii. kon giri bi sunu combat daf ñuy jaral daf ñuy jaral lu bari ci wàllu xam-xam ci lépp te sa du ko entraîné fii dañ ciy taxaw. combat bi bu ko jëyee tëgguloon ñun ñoo koy tëgg. bii paa mën nañ jàpp ne Gris Bordeaux euh, Gris 2 de ci biir écurie Fass lay lay entraîné combat bi ba combat kenn werantewu ko parce que noonu lañ mës a demee. combat bii passé amoon na ay dérapage yoo xamante ne am na ci. te loolu du si ñun du si ñoom. mais loo xamante ne Aliou Diouf merci xanaa parce que tey du woon du woon moom lañ ma proposé woon Elton la woon. topp nañ ko topp ko Elton daw laa ko mën a tuddee. parce que yàgg nañ ñu di jéem a boole ci làmb muy daw moom mu accepté ko te gën ko yàgg trop wala wala baax na pour waajal liggéey weesu na yàgg weesu na yàgg parce que ñun ay xale lañu ñun sañoon combat yi ñuy am deux mois lay nekk wala trois mois waaye comme que nii nii nii la demee promoteurs yi tamit am nañu ay problème sponsor ak yooyu da leen di may ñu jël seen temps mais ñun bu ñu sañoon combat wu deux mois rek la ñuy bëre est-ce que boobu léegi Gris 2 mu ngi woon ci entraînement yi wala. waaw ñu ngi ci bu baax a baax. depuis ba jugee ci li jugee ba léegi amuñu woon beneen temps amuñu woon beneen occupation moo ñu teree woon voyage moo ñu teree def lépp parce que li ñu insisté rek mooy bëgg bëree ren ba pare door lépp lu ñuy nekk rek ñu nekk ci. ngay wax lan sa sa fan si ak supporters yi ñooñu loolu. waaw samay supporters Médina Fass Colobane Gueule Tapée Centenaire Gibraltar Rebeuss waa Yoff waa Wakaam xam nga. fépp fu nit nekk waa warang mbuur ñëpp di leen wax rek na leen ñu waaj suñu mbokk séeréer yi xam nga waa Tiwaawan bu baax di nuyu xalifa bi sëñ Baye yàlla na yàlla guddal fanam ak njabootu Seydi Hadj Malick yëpp ak bépp kilifa diine bu nekk ci réew mi di leen wax rek nañu pare waa parce que combat bi combat la boo xamante ne fi ñu jugee moo tax dañu war a ñëw pour jëlaat suñu place si làmb moo tax jaral nañu képp koo xamante suñu soppe la ak waaw Papa Sow xam nga tey suñu dafa wax loo xamante ne man dama waxoon ne sax ne waxu Papa Sow ak Fass du ma ci wax parce que problème mu ay xeexu gaynde moom yoonu muus nekku ci mais comme que Papa suñu mag la keroog ba ñuy mujjee def réunion Fass te moo ko écrit Fass li si perte dafa ngay wax rek nee na Papa Sow tey bu summeeku woon dugg entraînement Fass di entraîner kenn sañul ne ko génnal kon foofu dàq amu fa li may wax rek mooy tey Sénégal liñ naan mbir bu amee am na ku nekk ci toor am na ku nekk ci yoon te tey kaaw Papa Sow ak Igri amul kenn ku nekk ci Sénégal koo xamante ne xamul ne kii moo juum muy yow miy wax ak man muy man mii di wax muy per yooyu war ngeen analyser pour wax ne carrément kat lii mosuñu ko gis ci sport lii war na demee nii war na demee nii bu ko defee ki juum xam ne moom ci fi mu taxaw foofu noonu loolu du yoon buy defar mais ñun c'est la famille ci affaire yi la bokk ci affaire yi la bokk mais nag Sénégal comme que boo ñëwee jaar ci digg bi dina am ñoo xamante ne dañ lay mere am ñu la kii ñu def ni ñëpp rek buñ ci wax waxee si waxu jaaxaanaay boo xamante ne kenn du mer. ñëpp xam nañ ki ki ki juum boo nee ñëpp xam nañ ki juum man man man man xaw ma xaw ma kan moo juum. non loolu yow boo ko waxee yow loolu boo ko waxee kon man damay gëm ne yow kon doo journaliste wala kon nekkoo si Sénégal waaw kon loolu noonu tey nga wax ne ne xamoo ku am dëgg mooy man mii sax mën na am sax li ma jàpp ne mooy dëgg sax du dëgg mais dama la wax la plupart des sénégalais wala tey nga jëlee woon benn japonais japon teg ko ne ko problème mu Fass Papa Sow nii la demee nii la demee nii la demee dina na la kii nii moo nekkul ci yoon même bu xamul sax kooku mooy kan parce que dëgg benn la du ñaar du ñett du ñeent mais toujours rek àdduna day am ñoo xamante ne mën nañ la bëgg sax ba duñ la nangoo wax dëgg dañuy wax wiiri wiiri wiiri ah. wiiri xam nga ba loo xamante ne yàq rek lay mujjee te Papa Sow gis nañ ko mu préparé ñaari komba yoo xamante ne moog la dëggee de ak moog Ama Baldé yëpp si tiraillement la ko amee mooy comme werante yi werante kii gauche passe nii mu koy ñàkk facilement ci noo xamante ne kenn mësu ko ko xamee kon nag bii nii nga xamante ne moom la jëm presque muy la sa ci moom ki muy bëreel waru ko warul am ndam ci moom parce que Papa Sow suñu kilifa la ki muy bëreel xalaatuñu si àdduna ku xam Papa Sow xam ne ki muy bëreel nii waru koo daan te nag bu bëgg ko commencé si ay weranteeg yooyu noonu man loolu man souhaité wu ko bu ma nekkoon sama wet ci wetam wala muy Gris dinaa ne ko grand fi nga ko jàpp nii fi nga ko commencé teg nii combat du foofu waaw du foofu. kon bu doon yow da ko naan na bàyyi lépp teewul lu mu soxla faas bu soxlaa pe Tapha Gueye Tapha Gueye day taxaw force si wetam bu soxlaa Abbas Ndoye Abbas Ndoye day ñëw ci wetam par force mënoon na génn génn boo xamante ne noonu lay demee bu ma soxlaa man wala mu soxla ku mu mën diggante ak waa waa parcelle ànd bi muy ànd ak waa parcelle dafa gêné waa waa waa écurie Fass muy ànd ak Modou Lo bi mu dellu soité foofu ànd ak Modou Lo ànd ak ñoom waa Fass waa waa parcelle yu mu passé nii dernièrement bi yëpp di ko perte du loo xamante ne lu jaadu la parce que moom si boppam sax affaire bi da koy déstabiliser parce que man combat ak bal Baldé dernière semaine bi laa ko gis face mais ni muy ñëwee nga xamante ne kii fi muy ñëw sax kóolute bi des na nekkul à l'aise te man mi xam Papa Sow xam naa ne pour mu dem ci combat am ndam foog mu am bopp bu tranquille mais est-ce commencé wul ci Gris Bordeaux euh, Gris doo Gris Bordeaux sa mag bi muy bëreeg Modou Lo gars yi xaw a yaakaar ne moom ak Modou Lo jàppante beeg yooyu. non loolu loolu mu Papa Sow lañ dékk micro mu ne Gris Bordeaux Modou Lo que loolu yéen ñi fekkee làmb yëpp xam ngeen ne si histoire làmb walla si histoire histoire sport ci àdduna bi yëpp loolu kenn mësu ko gis mais loolu ba mu paasee tamit xam nañ ne juumte mën na am ci àdduna teewul on est ensemble Papa Sow man li mu xam ci man Gris xamu ko man moom dañ partagé pendant des années bëre manqué jege ko sax am na man lu mu manqué lu mu ma wàññi man ci man parce que toujours ñoo doon nekk mu may Papa Sow fu ñu jaar fu Papa Sow jaar du fa jaarati mais xam na ne doomu aadama bu nekk day juum mu dellu ci raison bi tegu ko ci yoon mais loolu yéen ñi nga xamante ne sax faru leen fenn sax xam ngeen ne loolu c'est pas du lu